bisimilah barke borom Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki julli ci mbokki taalibe yi ñu seetaan en direct de Touba ñu ngi di nuyu di leen ziar di leen baalu ak di leen baal ak ginnaaw sant suñ borom julli ci yonent bi di ñaan ci barkeb Cheikhul Khadim xalifaab Khadim Rasoul di Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te wér ba lépp lu mu naan lépp lu mu yéene liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim suñu borom ko mu defe ko nu koy njort noonu lañ koy ziare itam xalifa Cheikh Ibrahima Fall di Serigne moo Modou Mbenda Fall moom itam ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér mbokk yi ajumaay Touba tey ji mooy ajuma ji jëkk ginnaaw ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides ni ngeen ko gisee ci waajtaay wi ci wàllum communication bi bis bi nag agsi nañu juróom-ñetti waxtu jot na sëkk fi nga xam ne ni moo di diggante daaray kaamil ak jumaa ji ci penku fi nga xam ne nii moo di jullikaayu it bi tey jii nag ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha bis bi nga xam ne nii dañ ciy boole zikrula jàng alxuraan ak xasida ni mu ko waxee woon bu juróom-ñetti waxtu jotee mbooleem Baye Fall yi kuréelu Baye Fall yi ñëw nañ teew fii ànd ak seen i jëwriñ ak seen i kilifa tàmbalee ko baatub la ilaha illallah di turu yàlla wi nga xam ne nii képp ku ko tudd rek sa xel dem ci Baye Fall ni ngeen koo gisee fi nga xam ne nii moo di diggante jullikaayu it bi ak armel yi waaye ci penk jumaa ji fees na dell ngeen gis mbooloo mi ay sappe yu bëree bëri te yaatu ñu ngi wër jullikaay it bi ngir nag jëfe ndigal loolu ci fàttali Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké moo ko jox mbooleem julliti ak taalibe yi bay Fall yi war ko ubbee zikrula ñu war a tàmbali nag juróom-ñetti waxtu ba fukki waxtu bu noppee ñu door a dem nag ci xasida yi kon fii may wax ak yéen nii ni ngeen ko gisee zikrula bi mu ngi jolli kuréel yi ñu ngi ñëw kilifa yaa ngi fi mbokki taalibe yi ñu ngi seddale café yi ñu ngi séddale ndox yi ak bépp liggéey boo xam ne nii dana ko yéwénal ci kanam tuuti kon duñ def lu dul ànd ak yéen dugg ci biir liggéey bi xool jëwri ñi nga xam ne ni ñoo jiite mbir mi ñu daal di leen jox kàddu gi su ko defee ñu béral seen ak cant ak seen i soññe ci kanam tuuti danañ ko gën a yaatal fii ci Touba taala ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax di leen ndokkeel ci ndigal li teel gi tàmbali gi ak jëfe gi di nekk loo xam ne nii du ne guleet ndax lu yeesaat la diggante Serigne Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall ndigal li tey ni ci Baye Fall yi sóoboo yan kàddu nga ciy barkeeloo. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñi ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul di jaajëfal maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaanal baax suñu borom guddal aw fanam lool wéral ay cëram ba liggéey bi muy liggéey Serigne ma maam ci lu kawe njortam ànd ko njabootu Serigne Touba gépp noonu lañu ñaanalee Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda di ñaan suñu borom defal ko tawfeex yoro fan wu gudd lool wa ànd ko wér ba liggéey bi nga xam ne moom la liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall mu am ci lu kawe njortam di leen xamal ni euh, lii du guléet euh, di rub sëñ Muntaxa nekk Serigne Touba ba léegi euh, mi ngi woote bis boo xam ni bis sukar def naa woote na ko ñaari yoon bii ko ñetteel ñu ngi ko ci ñaanal liñ ciy sàkku di ko ci sàkkul murid yi yàlla na ko ci yàlla may loolu ci bàkkeeb Serigne Touba xanaa di rafetlu lii bu baax a baax rek euh, sëñ Mountakha moom yërmande kese la te ndimbalit la bëggal jaam yi moo tax waxtu nekk ñu ngi woote bisu sikaru laha ndax day mel ni sikaru yi day loo xam day lu màgg ci suñu borom day mel mooy tur tur yàlla yooyu xam ni ku ko ci woo mu wuyu la loolu moo tax sëñ Mountakha waxtu wu ne mi ngi woote turu yàlla di jiital Baay Faal ci loolu di woote njàngum alxuraan di woote njàngum xasida di woote di jàngul ay salaatu ala nabi di euh, def lépp loo xam ni euh, lu yàlla digle la di mot loo jàmm lépp lu yàlla tere day mel ni kon sëñ Muntaxa euh, li nga xam ni mooy fi sëñ Tuubaa tegoon tànkam ci jaamu yàlla ak di ko liggéeyal ak di liggéey Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sëñ Muntaxa foofu rek la nekk ñu ngi koy ñaanal baax a baax di rafetlu lii di ñaan suñu boroom defal ñu taw feex ba li nga xam ni moom la ci sëriñ bi bëgg jublu ko ci lépp di ne yàlla nañ ci am lu kawe suñ njort loolu barki sëriñ Tuubaa ak Seex Ibra naa benn uh, soññ rek lay doon jëm ci mbokki Baay Faal yi ci ndigal li ni ko sëriñ bi waxe woon diggante juróom-ñett ba fukki waxtu loolu itam soñ ci mbokki taalibe yi bu baax a baax na rawatina zikirkat yi waaw xanaa di di di di di fonkaat di soññaat Baay Faal noonu ko sëñ Muntaxa waxe woon ndax daa waxoon ni ñu tàmbali juróom waxtu ba fukki waxtu day mel ni loolu xam naa moo tax ñuy profité des na ko respecté bu baax a baax waaye di ci profité rek di sant Baye Fall yi te di leen ñaanal euh, te xam ne sëñ Mountakha moom ndimba rek la leen bëggal xéwal rek la leen bëggal kon ñu ngi sant bu baax di gërëm di soññ Baye Fall baax a baax ñu gën a góorgóorluwaat bu baax gën a laxasaayuwaat baax gën a fonk ndigal te xam ne li ñuy sàkku lépp ci baatum rek la nekk nañ ci góorgóorlu baax fonk baax a baax. Serigne Mame Cheikh Far Zikroula jiite fédération daayira yi zikr fii ci réew mi ak bitim réew kon sëriñ bi ginnaaw ziar yi rek ak ndokkeel yi ngeen jiite mbooleem euh, fédération daayira yi nga xam ne ñooy tudd turu yàlla tey ñëw ngeen sobuwaat ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha yi yan kàddu ngeen ci yëkkate waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi bokki taalib yëpp di ziar bokki jullit yëpp di jiital ci ziar bi sëriñ Mountakha mu sëñ Basirou bu ko ñaanee yàlla suñu borom yàggal loolu te di ko ñaana bu baax sëñ Amdi Fall sëñ Modou Mbend yéen ñaan yàlla sunu borom yàggal leen te wéral leen ak cant bu baax ci mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom lañ àndal liggéey bii mboolem fu kuréel tuddkatu yàlla nekk rek ñu ngi lay jaajëfal bu baax te di sant bu baax a baax te di ñaan ci dooley maam Cheikh Ibra liggéey bi ni nu ko sëriñ bi digale yàlla nu sëriñ bi defal ndimbal ak tawféex ban defal ko ko ni mu ko bëggee di barakati maam si Ibrahima Fall ndax li sëriñ bi wax rek ku nekke ca la la war du la xañ mukk li nga war a am am na lu bari loo xam ni buñ la ko defalee ah, ta nga xam ne lii ñu la defal jomb la lay taw feex ji mooy nga xam lan la defal te ko di jiital ak cant rek te ne euh, lii rek lan am mooy jëfe ndigal bàyyi tere sax sëriñ bi xam li mu yéene ak li mu ci donga yi kenn ku nekk loolu war naa mën a yomb ci yow ndax turu yàlla moom kenn ku nekk min na ko ci Baye Fall donte ñëpp la ko suñ borom digal waaye nag maam seex Ibrahima Fall dëkkoo ko ba ñëpp askane la ko di jiital ak cant akum ñaan di ñaan suñ borom eh, defal ñu defarub saay rek baatin yàggal fi sëriñ bi mu yàgg ko digal sëñ Amdi Fall mu sëñ Modou Mbend ñu yàgg ko jëfee ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi santaat bu baax te lii leen santaat bu baax a baax. Cheikh mel ni kon ndigal li ajuma ji di ñëw itam ah, ci la bokk. waajtaay wi ak soñña bi ñeel mbokki Baye Fall yi bisimilah. waaw moom day euh, ak cant rek lañu lañu lañu jiitalaat ndax sëriñ bi moom boo xoolee liggéey bi day wane ni rek waruñoo am genn jot bu du liggéey sëñ Tuubaa rawatina nag lii nga xam ne mooy turu yàlla kon mbokki taalibe yi nan bàyyi xel bu baax ci kin jëm si ak ci lin jëm si kin jëm si mooy sëriñ Tuubaa lin jëm si mooy turu yàlla ngir jëfe dase mooy euh, ajuma bi ñu jëm nii ñu ko defee noonu lañ koy defee nan fexe fépp fu fu nu sëriñ bi digal fu mu ci àgg rek fexe jot jaajëfu sëriñ bi ndax mooy ndimbalu tey mooy ndimbalu ëllëg te ku la gën a xam tey ku ne moo la gën a xam ëllëg jërëjëf jëfati soññee ci euh, bisub tey bi ak yeneen bis yi nga xam ne nii ay ndigal lay doon incha allah. xanaa di santaat yàlla di santaat yàlla baax rek ci liggéey bii nga xam ne moom la ñu sëriñ bi boole ak moom ndax bi nga xamee ndigal lii itam ak seen sëñ Fall mu sëñ Modou Mbenda daj ci njabootu maam Cheikh Fall gépp moom sëñ maam Cheikh Fall mi si korulaax nga ne moo jiite ànd tuddkat yàlla yi sëñ bi teg liggéey boobu ci loxoom man ko bokk tuddkat tuddkat yàlla yëpp waaye ñoom ñëpp wuy si nañu woote bi ndax woote bi liggéey la boo xam ne sëñ Touba moo koy liggéeyloo maam Cheikh Fall kon nag comme ca boole na nga xam ne tànneef nga ci tànneef yi mooy ñii nga xam ne leen tànn ñu war ñëw taxaw tur yàlla yi te mooy kuy kuy wax laa ilaaha illallaah rek te yéene ko waxe ci fii Touba ndigal li itam fii lañu ko sëñ bi ndigalee ci Touba ajjuma yi itam def naa ay ajjuma yi ajjuma waaw ñoo xam ne sëñ baa ngi natt suñu pas-pas la sëñ bi natt pas-pas nag kenn ku ne boo xëyee na gën ko bu ko soboon mu ne bis bu ne nañ ko def ba màggal ga dañ ko def ni mu ko waxee ndax moom moom mbégtam la ñuy sàkku te jëm tawfeex xam ci leen nag kon daal sëñ baa gën a soñ ñëpp nag ñu gën koo bàyyi xel di leen yóbbante am nuyoo ci sëñ xam ne moo jël nga xam ne waxuma la boole gi ñu sëñ boole liggéey bi waaye bëgg gi bëgg maam Serigne Fall bi seet muy feeñ liggéey bi mu da ko wane fu mu toll loolu ñu ngi ki yóbbante ay cant ak i ngërëm di ñaan nag ci barkeb sëñ Touba yàlla neen maam Serigne taxaw te dimbal leen ba ngeen yegg ndax yoonu murit lu ca am na nga ko santee maam Serigne Fall ba mu dina waaye fas na yéene daal fii ba baa ajuma yi ni ko sëñ bi bëggee ajuma jot dina raw moom jañ wees woon incha allah rabbi mu ngi sant baax tey gërëm ñëpp. xanaa di nuyu rek di sant Cheikh Amadou sant bu baax di ko ñaanal mu yàgg te wér lim jublu si liggéey liggéey bii mu si jublu ñu ngi ñaan si doole Cheikh Fall yàlla na ko am yàlla na doon aw fanam mu gudd yàlla doon ak wéram yàlla doon taw féexam si murid yi ni mu bëggee taw féexam murid yi yàlla na ko am barki maam Cheikh Fall lim bëggal murid yëpp yàlla na ko am yàlla murid yi am liñ bëgg lépp sëñ Mountakha waaw taw féex yëgal li daa mel ni tey la ak beneen bi di ñëw ak yeneen yoo xam ne nii rek yéen koy nëgandiku soññe yi ak waajtaay wi loo ci soññ mbokk tali bi waaw fas yéene jëfe ndigal li rek ndax dañoo wax ni àjjuma ji bu dellu see dañuy defaat nii dafa mel ne wax tudd nañ sax ba màggal incha allah parce ko yéene bëggug sëriñ bi rek moo nu fi bàyyi bëggug sëriñ bi rek moo nu fi bay ndigalam rek nu fi bàyyi sëriñ bi mi ngi soññi si mboolem ku di Baye Fall ku yaakaar Cheikh Ibrahima Fall bis na bokk si sa si sa yitte sa calendrier ajjuma ju jot fii ba màggal mu daje fi tudd yàlla nu ko mun sëñ a bëgg ñaanal ko nag mu yàgg fi téwér ndax sëriñ bi wax na ne lépp luñ si faggu dina am kon liñ siy faggu ñaan mooy sëriñ Muntaxa yàgg fi te wér sëriñ Amdi Fall yàgg fi te wér nun murid yi ñu yàgg seen ginnaaw yàgg leen a liggéeyal ndigal lu nu jox ñu am kàttan nu mën koo jëfe loolu rek mooy sunu bëgg wax Baye Fall wax dal wax yar wax teggin loolu itam beneen soññe bu gàtt rek ñeel mboolem mbokk taalibe yi ñu seetaan en direct de Touba waaw ak taalibe Cheikh Rodal moo ko jàngale te si ay ay tomb la ko jàngalee tomb yi bi si jiitu mooy yar ak teggin loolu moom yàgg nañ koo dégg yar ak teggin képp koo gis muy wuyoo Baye Fall wuyoo Cheikh Ibra nga xool jëmm ji génn si yar ak teggin dara du si dara du si yar ak teggin moo jiitu ndax li li mandarga ak taalibe bi lépp mi ngi feeñee si yar ak tegin bu bu taalibe bi di feeñal si ay jikkoom si ay doxam si ay waxam ay jëflanteem ak lépp ñëw sukk fi suuf di sa mbokkum taalibe waaye fal sa bopp wàcc sa bopp ci wax ci kaddu gi ba si kaddu gi sax danga koy lewetal ba nga xam ne ki ngay waxal bu doon bu doon dëgg nga koy waxee dëgg nga dana nooy nepp ba mën koo dégg loolu la moom moo moo. Cheikh Awa Balla Gaye Chikru Lehi waaw ngi leen di siyaare baax xanaa xanaa Baye Fall yëpp murit yëpp seen xol sedd ci guy rek ñu làng ak sëñ Xaadim Diouf la sëñ bisimilah. sëñ Xaadim Diouf bisimilah kon tey yéen a ngi ci waar wi nga xam ne nii mooy seen liggéey seen matt ci waaru sëñ Touba mu nekk ndigal tey Al Mouridiyyah TV mu ngi lay tàllal micro almouridiya ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp seen tur seen sant ñun ñu ngi bàyyi ko ba Bignona fii lañ dëkk nag waaye ñoo fi teewal waa Touba Bignona seen kilifa xam na fi bu baax ndax fekk nañu fa ñu ngi bàyyi ko Bignona teewal fii waa Bignona yëpp am yëg-yëg bi Baye Fall yëpp am ndigalu sëriñ Mountakha Mbacké lu mu joxe ci tudd yàlla ak wàcce kaamil jàng alxuraan jàngi xasida ñu bàyyi ko Bignona teewal fi waa Touba Bignona yëpp ñun waaw jërëjëf xam naa kàddooy soññe yi ci yeneen digal yi di ñëw itam euh, incha allahu rabbi mu mel ne sëriñ bi def nii ñaar euh, fukki ajjuma ak ñaar lañu koy def ndigal lu ñëw rek ñi ngi ñaan yàlla suñu borom may ñu ñu wér fekke ko tal ko di soññ suñu bopp di soññ Baay Faal yëpp di xam ne sëriñ Muntaxa Mbàkke mosuñoo digal lu dul suñu njariñ ñu góor góorgóorlu ci rek fu waay mënti nekk te mën a ñëw nga ñëw nii ñu koy taxawoo nii tey fii ci Touba région yëpp ñu ngi ko fay taxaw ci kër sëñ Touba yeeg jàkka yeeg jumaa yi nii rek lañ koy doxalee ba koroog ndigal lii mat incha allah. ñëw tey. Touba Tene Mansour lañ bàyyi ko. teenu maam Cheikh. Touba Tene Mansour waaw tey ngeen ñëw tàbbi ci ndigal li. Mhm. di zikrulaa bi. waaw yëg-yëg bi taxawaay bi ak lépp loo ci mën a. waaw xanaa di ko rafetlu rek di góorgóorlu si ndigal si xam ne suñ Muntaxa moom bëggul lépp lu suñu njariñ rek xanaa di ko ñaanam yàgg fi loolu te wér ndax lii dafa rëy yëg-yëg bi ñu am daal mooy ñëpp am jàmm si ñaan suñ Muntaxa mu yàgg fi loolu te ànd ak wér yéen nag ñu ngi sant li ñaanal seen média bi yàlla yokk bu baax a a kontaan nañ loolu ñu ngi ziare rek xam naa tur bi rek la ñuy eh, laaj ngeen ñëw fii ci eh, Zikrullah bi di ndigalu Cheikh Mouhamadoul Muntaxa jëm ci Baye Fall yi ngeen di Baye Fall yëg-yëg bi taxawaay bi ak soññe yi bismillah waaw soññe di xanaa mooy jot ndigal rek te jëfe ko ndax Sëriñ Tuubaa def ne am murid amut lu dul ndigal loolu ndigal nag ab caabi la bu ëppee du tijji bu yeesee du tijji kon ñun ndigal rek la ñuy déglu ñun Baye Fall Baye Fall dal li ko tënk lépp muy ndigal ndigal nag jafe la looloo waral teewaay bi ak pas-pas bi murid yi àndal Touba kam jaag lañ bàyyee ko am na ab yóbbal booy soññ mbokki taalibe yi rek Baye Fall yi rawatina dal gi rawatina ci xurum bu tedd bi ñu nekk tey waaw barab bi moom barab barab bi barab bu sell la ñu gën a sàmmonteeg rek mboolem li Serigne Touba tere te ñëpp di ko dégg saa su ne Serigne Mountakha di ko fàttali euh, média yi it ñu mel ni yéen di ko li murid yi mooy gën a sàmmonteeg wor may Touba rek lépp loo xamante Serigne Touba bugg ko ci dëkkam bi góor ak jigéen mag ak ndaw ci yem nañ ko bàyyi xel te di ko jëfe suñu kemtalaay kattan loolu moo ñu fi moo ñu fi war ak jërëjëf. xam naa tur beeg foo leen bàyyee ko ñëw barkeelu si fii ci Zikroulahi bi donga buñ naan lamp jongo moom sëñ Cheikh Fall ndigal waaw liggéey bi moom xam nga li ñu def nii Baye Fall social ci moom lañ ko ñëpp royee ndax lépp maam Cheikh Fall la loolu nag moo tax nun nu bokk boole ci lii rek waaw defar café gi di ko jox murid yi ngir sëñ Bamba Cheikh Fall rek waaw kon si kurlaa bi tey euh, mën nañ ne bisub cant la waaye bisub bernde la itam waaw moom ñooy ñooy ndax turu yàlla mooy doxal lépp ci kaw ba ci suuf turu yàlla ay doxal lépp kon bu buñ ko dee boole sëñ bi joxe ci ndigal nu boole ko taw fii xéewal yi café yeeg lan lu ci nekk berne yi maanaam loolu moom fes fees mën a yem waaw kon nan bu gàtt rek ñeel mbokki taalibe yi rawatina Baye Fall yi nga xam ne tey jii ñëwaat nañ yeesa ndigal ci pàkk bu tedd bi waaw jëfe ndigal rek jëfe ndigal bàyyi tere rek Baye Fall moom loo a wax jëfe ndigal bàyyi tere rek mooy waar wi waaw tawfiix laa ilaaha illallah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 illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kon mbokk yi jërë ngeen jëf lii nag mooy euh, ndigal li nga xam ne ni Cheikh Mouhamadul Mountakha joxe woon na ko ci ajumay Touba ajuma ju jëkk ji ñu ubbee ko Zikrula ngeen gis 8h bi mu jotee la Baye Fall yi ñëw fasantikoo ci ay kuréel ngeen dégg seen jëwriñ sëriñ maam Cheikh Fall. waaye kilifa yi teew nañ fi nga xam ne nii moo di Touba diggante jumaa ji ak jullikaayu it bi jàpp armel ndigal li ubbee nañ ko Zikrula noonu lañ ko daal di wéyale ba fii xam naa ne ñaari simil rek dinañ dakkal njàngum xas mi daal di wéy ñu daal di waajal julli ajuma gi. kon ajuma bu njëkk bi Zikroullah nii ñuy wax ak yéen ñu ngi koy def en direct ci ay euh, bërëb yu fasanti ko moo xam muy internet rajo wala télévision ngir yaatal ndigalal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg loolu te wér alhamdulillahi alkarim dhil minan ala ishtighali bi furudin wa sunan alhamdulillahi alkarim dhil minan ala ishtighali bi furudin wa sunan شكرته لأنه قد ساقني لوطن به نفى ما عاقني وقادني إليه بالتحلي من بعد ما هذب بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا